millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent deux saytuna àll yu jot collecte yi àll yu jot du 1er novembre 2023 au 10 décembre 2023 1er septembre 2023 au 10 décembre 2023 recette yooyu mu ngi toll ci quatre million huit cent soixante sept mille cinq cent buñ ko yokkee ci solde bi àll yoroon les dix millions sept cent quatre vingt dix huit cent deux solde nekk quinze millions six cent soixante cinq trois cent deux mais ci solde boobu période premier septembre deux mille vingt trois ba ba dix décembre deux mille vingt trois dépensé nañu huit cent quatre vingt cinq mille neuf dindee solde boobu mu yoroon mu des quatorze millions sept cent soixante dix neuf mille trois cent vingt ci kees gi léegi ñu seetlu. ne liggéey bi muy def dafa xaw a diis dafa xaw a jafe parce que nga yor kees mel noonu di manipuler xaalis en espèce di ci génn ay dépense dafa metti parce que di nga di nga juum sax ba am ay manquant li koy yokk mooy manipulation bi muy def ñu ne loolu sax dinaa ci ñëw euh, recommandation yi ñuy def léegi ñu continuer bi mu defee bi mu bi ñu cumuler le solde en caisse de quatorze millions sept cent soixante dix neuf trois cent vingt sept pour faciliter la gestion future ñu nekk dañ lay utal un fonds de caisse présentement fonds bi ñu ko autorisé pour mu jël ko c' est trois cent onze mille cinq cent vingt sept fonds boobu moo koy servir comme li mu doon cité dépense ndaw ndaw yi mu doon def mu gën a yomb y a un y a un projet de simplification et d' outil de boo xam ne bii tracé bi mu ngi ci mbay faal def nañ ko pour le fonctionnement de la petite caisse où fi ñuy loger euh, le fond de caisse ah fond boo xam ne bii bu ñu def chèque ci foofu la ñuy ko carnet boobu la ñuy bi ñu continuer xam ne woon naa leen dem nañu ba am quatorze millions quatre cent soixante sept huit cent mu am versement boo xam ne bii mooy le dix bi mu def le dix décembre deux mille vingt trois un million deux cent quatre vingt dix neuf mille huit cent léegi bu ñu càmbaree lépp lépp lépp yàlla def na liñ ko santoon def na ko parce que dañ ne d'ailleurs avant sax ni ñuy contrôler ubbi woon nañu benn compte bancaire. bu ñu defee réconciliation ah euh, li Aliou yoroon ne moom la versé ça concorde actuellement man nañ ne dañoo sàkkee si dëkk bi amee dëkk bi li dëkk bi am yëpp a ngi ci banque montant boobu ci li Aliou versé mooy treize millions cent soixante huit mille ñu yokk ci dernier versement bi un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent loolu yëpp mu ko banque mu ci banque bi mais ci montant boobu am na frais des ajouts bi ñu dindee ajouts yi dëkk bi mu ngi am quatorze millions quatre cent vingt-quatre mille trois cent cinquante est-ce que loolu leer amatul keesu dëkk amatul lii dëkk bi am Aliou yore lu mu jot daf koy versé ci banque ci banque bi am nañ fa millions quatre cent vingt quatre trois cent cinquante bi ñu paree pour simplifier le travail de Aliou dañu def ay recommandations dañ ne chaque bu ñu collecté ba pare totalité collecté boobu mu def naka versé ji à la banque bu mu ci dindi fifteen naka versé bu ko versé banque bi dina ko jox un reçu reçu boobu lay lay jël épingle ko ci ci feuille collecté boobu ci la ñu waxee aussi ne création d'un de caisse à hauteur de trois cent mille xam nga tuddoon naa exemple mais nag dañ ne de caisse boo xam ne Aliou dina ko yor à hauteur de trois cent mille waru ci fay loo fa cent mille comme produit montant li gën a rëcc moom dépense yi nga xam ne dañu ëpp cent mille dañuy def chèque à la banque pour ñu def dépense boobu am na ay documents yu ñu proposé fiche de collecte fiche de dépense par caisse fiche de dépense par chèque ñu xoolaat nañ ñu gisaat ci documents yi ñu ne documents yi ñu ne le, les paiements par chèque doivent porter deux signatures yu M. Issa Niang et M. Mamadou Anne en l'absence ñoom ñaar ku ci absenté am na beneen signature bu leen di complété mooy signature Babacar Fall je crois que loolu daal la ñu amoon lu ñuy wax maintenant li des li ñu leen desal yéen mooy fiche yi nga xam ne Babacar mu ngi koy confectionné maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sur ce Aliou monsieur Aliou jox nañ la cutis jërëjëf sa liggéey rafet jox nañ la cutis commissaire au compte jox nañ la cutis jërëjëf wasalaam